lépp maa ngi sant waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Habib maa ngi sant waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Habib maa ngi sant waa kër Cheikh na wóor na maa bu baax a baax a baax maa ngi nuyu sama ay waajur bu baax a baax a baax maa ngi nuyu waa Pikine di kontaan ci waa Pikine bu baax Pikine tamit maa ngi ziar gars yi bu baax a baax a baax waaw chaque jour yéen tax ngeen ñu yokk futal yokk fulla yokk faayda teg suñu bakkan bi daa wala maa ngi lay nuyu bu baax baax a baax. Boy Niang ngay bëri titre roi des ki ngay bëril dugg si na Pikine caméra voilà. dugg na fi duggati fi waaye comme li ma wax ay jooy kenn. micro. micro bi. loolu yàlla xam na ko dugg na fi duggaat na fi comme ni ko waxee. waaw war naa ko war naa ko amateur war naa ko ñëpp. incha allah jooy kenn balaa jooy kenn. moom it ñu ngi koy nuyu bu baax bu fekkee yow mii waaw doomu Pire la Mbow Thiaga Diop Abdoulaye Timbo Thierno Mbemba Amadou Diarra muy limee du du lu matal waaw ñëpp am na. face à caméra waaw ñëpp ay doomu Pire lañu jàpp nañu ci bu baax a baax a baax ñu ngi leen di bu baax. ngeen def boo ñaa ngeen ko defal mais doomu Pire ngeen ko defal ñu leen di bëgg bu baax a baax jàmm ci yéen kontaan nañu bu baax. di nuyu sama doomu sama doomu ndey fi ñëw lépp bëri. daañu ñëw parce que ñu ñëw foofu ak daal dëgg leen. waaw xool bi ak xel bu lépp foofu dama bëgg a wax ñu ñëw après ñu ñëw ñu ñëw ci question yi ñu xool caméra yi aussi. waaw Fass voilà. bu nga xam ne ni bëri Modou xarit moo yombul ndax Modou pour nga daan ko il faut nga taxaw physiquement parce que. sama faagaabaal yi njëkk yi xam nga woon naa pas woon bi dañ dem pare pour bëri une heure de temps intense kooku une heure temps intense xeex bëri temps bi 45 minutes intense xeex bëri fu ñu def ko incha allah wala. jàkkaar la mu mën def loolu dama ne. non dafa war a jàkkaarloo ak ñun fii bay baax la 45 minutes yu intense temps 45 minutes yu intense di xeex di bëri di xeex di bëri incha allah. dagg jënd yi joué ak ku mu doon kon doomu Pikine laa damay wax ne sax boo xoolee nga dem nga dem ci ginnaaw tuuti boo bëree saa teel ba pare yàlla may ma ndaw Mourou Mbaye seen confrère dafa ma ndaw fekk ma ci néew bi ma ko benn wax ma ne ba léegi déggoo leen ni ñu gën a dem ci xam làmb ni ñu gën a dem ngeen gën a xam kan moo booy ne incha allah. mbokk yi ñu ne président Modou Guèye dafa kàddu bu ci mën a dégg après ñu ne question. asalaamaaleykum waa Pikine tey suñu doom moo taxaw wala jëli ci kuran bi indiwaat ko biir Pikine te suñu yëpp tey ñu booy ñaar booy ñaar ñoo am te rafet nañ si yow xam nañ bu dee jom la bu dee fula la bu dee fayda la bu dee fit la bu dee ngor la di ko wane ca lamb ja ñu ko bëree ñu ko ñëw ñu ko baax Amadou Kounine waaye sama dernière question mooy Boy Niang Modou Xarañ maa ngi génne seen diggante moom moo dagg jën lii wut la te ku ne xam na ni Boy Niang numéro 2 dafa aay ci attaquant lan lañ mën a xaar ci Boy Niang foofu. lépp laa aay su ma ñëwee baax na su ñëwee baax na bu ñu dalee baax na waaw lay lépp baax na. tey beneen Boy Niang laa gis depuis bi nga dugg si ci biir open press bi ba léegi beneen Boy Niang la ñu gis beneen kanam la ñu gis. mu mel ni Boy Niang dañ ko ci combat mu mel ni tey boo sañoon tey bis mi da koy bëri la war a xew. waaw parce que dafa am ñu lay bëree te ñu lay bëree doo doo leen bëgg ñooñu soxla dara muy waa Pikine incha allah. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar waaye nekk rek si li nga xam ne mooy ñun sama première question daanaka xaw ma koo laal ci Baye Baye dañu gis première question andi poids bu bëri deuxième question bi nga wàññi ci tuuti tey ñu gis ne da nga nekk ANCAR bu bëree bëri bëri gis nga yaa moom la lan moo xew si diggante bi dañoo tëj ruq dañoo fas yéene koos dañoo fas yéene xeex dañoo fas yéene jaar ba wàññi tey ni nga tolloon ba toll nii. waaw Baye Balla léegi dinaa ko su bëggee dama pare pour ñu bëree quarante cinq minutes un temps si bëree amateur yëpp jóg taxaw incha allah ñaan suñu borom dafa ñu ndam adversaire bi ngay bëreel daan ko waaw daf ñoo doon bu Boy Niang cappaa coli bi nga waxal ci jeex ba tey comme gars yi dañoo xaw a bëri dañuy wàññi rek question yi bu ko defee ñu bokk ko adversaire bi ngay bëreel bëri yegg na ci tànkam comme Eumeu Sène daanu ko Papa Sow yegg na fa daanu ko Bombardier yegg na fa daanu ko mbër la boo xamante bi nii waaw loolu la demee ñun ñoo ñëpp ñu koy ñaan ñun champion la ñu nangul man leen jox seen waat waaw waaw ñu koy ñaan man bi ma yoo xam ne lu ma am day ñu doon incha allah nag lu ma am day ñu ñu doon sama incha allah. waaw lépp laa lépp lu ma am dafa war a ci gàtt baal ko demee bëri man man ma jàpp bëri. ak Balla Gaye numéro 2 da ngeen a bëre ba pare am ñu nangu am ñu bañ cette fois ci mën nañu xaar Boy Niang euh, le premier gars yi nangul ko am fu ko classé ci mbir yi. waaw loolu la mooy àdduna moo demee noonu gars yi bu ñu nanguwul rek ba daanoon àdduna bi yëpp sax du tamit nangu mais amul benn problème li ma wax rek lu ñu gën a dawal ci làmb léegi dana xam kan mooy Boy Niang incha allah rabbi. amateur yi ñii ne ñoom. am na yeneen question quoi. Mamadou président bi la fel la amul machine bi. année bu suufee dañuy jege ñu xeex ba amaat ba ñëpp kontaan. loolu la ñuy xaar ci man la ñuy xaar ci moom. dëgg la ñu jege xeex bu baax bëri bu baax. bu ñam la bu baax boo xam booy naa jërëjëf. presse bi nuyu naa leen Fadel Ba. booy naa leen ñëw ñëw di ñaan la première yàlla na yàlla may fekk ak tal may ko boole jur. booy naa. lii bëri ñu ko di ko wax léegi ni su ma dugal ñu doon téye boppam ndax en tant que Boy Niang pare na pour approcher combat bi mu jeex ndax man la su ma dugal téye boppam laa mën naa nii ndax su Boy Niang ma dugal téye boppam tant que pare bu fekki ma dugal ci li mu bëgg. chaque jour ngeen wax loolu ma doon chaque jour dafa boy sama ñëpp kon combat bi mu bëri du benn du ñaar du ñett tamit quoi mais bu yaa ngi ci làmb doon naa nag jëli naa jëli nañ ma tey naa mbir lépp rek na la ndax moom kenn xamul lu fay xew muy waaj lépp comme ni ñu waxee booy dem ànd wala nga dugg sa sa sa ànd lépp. face caméra incha allah bu ñëwee lu mu indi fekk dafay lu mu indi lu mu fekk lu mu war a incha allah. ñu gis Modou Lo daanaka yow yaa des Pikine xaw ma luy xaw la problème mais en tout cas jàpp nañu ne bu dee moom moo am nag waxuma chef de quartier mais chef de canton lay doon. ndax booy nga bëri wàllu loo tam du diis ci moom ak population Pikine day na ànd ak moom ñun day diisul ci ñun. mooy doomu lamb lañ man doomu lamb laa dara du si ci man. doon naa ay takkusaan yu bari. mu doon adversaire am adversaire am. mu doon weesu adversaire am mu teel ma suñu coono wax. dëmb amu fi dina amu fi kenn ñu xam laa am xale ñu dëgër bëri. kon benn pare baayu si réew mi jëfante bu baax solo. ndax pare nga pour xeex ak Modou Lo ndax Modou Lo jàpp nga ni mën nga jëmee xeex. kon amu ko mën a xeexal. su ma toogee sama gàtt rek. jege rek ñu weccoon na neex trop. ak yàlla Modou Lo góor sama biir trois la. ñu taxawee ci gàttam jege ko bu baax a baax bu dee jox xeet dina neex trop incha allah su boobaa da ngeen gën a xam. kan mooy booy ñaar kon gisul woon ci booy ñaar da ngeen gis ko bu soobee incha allah. waaw par ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu waa Pikine yëpp di nuyu waa Pikine di nuyu waa Femme Kagne presque tamit maa ngi leen di ziar bu baax a baax. ku mel ni kii booy ñaar man li ma lay jëkk laaj mooy par rapport ak euh, Balla Gaye numéro 2 bi ñuy bëre que ne ca soir dafa jóg nga jóg. booyee la kii Modou Lo bëri dem ci mu jóg nga jóg fekki ko taxaw ci kaw may ma jàll ma ne ko doo jàll yaa ba ba nga leen na lu mu yëg ko tii mu toll dafa jàpp ne mag ñii noonu wala sa ci kaw bi laaj bi ñu laaj boo ko laaj bi ñu laaj sant donc amul fenn te ne wala jënd laaj loolu yaa bi daa waaye loolu yaa amul dara. waaw damay ñëw Thiel rek laal ko waaw taxaw ci dara moom dafa gën a waay waaye Thiel boobu baax na xam ne moom daal di laal waaye Pape Sall yow waaye am na boobu Sall daa waay ah am na boobu Sall ndax taxaw bi nga taxaw ci kanam daf koy écran parce que dama dégg sa benn supporter mu ne booy naa ñoom ñëpp commune wala sa école sa diplôme écran bi nga defoon ci kanam loolu jaaxal moo tax loolu laa ko bëggoon loolu moo xam mais comme ni ma ko wax rek bu ñu ko bëggee toog dama ne ko fii taxaw naa la sëñ wala bu ñu laalee gaa yi ñaan laa ko jàmm laate waaye seen li ñu jëm dama yow ay bërëb bi waaye yooyu tànn ay bërëb parcelle ndax yaa fa daan denc daan fa kàrga mboose ah waaw sos waaw sos moo la ko fa jot na mais kàrga moom wala jëfandikoo tey nga ñëw. wala daal di bëri bëri si ci moom moo dugg. da nga si boole moo loo yow. daan moo loo daan moo loo da nga si boole. booy ñaa ñëw daan moo loo avec la manière ci bu jaxasoo bëri parce que moom moo toogoon mu ne yow yaa gën a jafe bëri ka yow muy tànn bi koy wax da koo wax ngir bala la wala jëm naa sama xel wala da koo wax xam ne yow da nga koo dàq bëri wala lu xaw. loolu moo xam ne rek. waaw comme li nga wax rek. wala booy bëgg bis. ana booy bu bëgg bis ana booy bu yore travail ana booy bu am kilifa ana booy bu bëgg laa ana booy bu fonn laa incha allah yaa gën a bëgg bés ba yegg ci loolu lenn la jox incha allah ñu coono vraiment laale bu baax a baax waaw am na solo dañu gis yow ak Modou Lo comme ni ko

quota club PS wax naan un deux trois si un deux trois syndicat bi ndaw raay daa ma jaxas ka bay jaxas ka bay jaxas ka bay jaxas jaxas ka bay Boy Niang 2009 la dugg ci làmb mooy dugg ci làmb benn génération bu àndoon fula fayda jom dëgg suñu bopp bu ñu dugg incha allah parce que loolu laa teg sama tànk du ma ko teg incha allah ci xeex dañuy bëree loolu mooy njëkk jaar na ndox loolu xam nañu dañuy xeex dañuy bëree incha allah te ci wàllu xeex dañuy bëree ba mën a bëree dafa mën a xeex dina weccoo ci xeex dina weccoo ci bëree ñu mën a maanaam demee ci bëree mooy tur boobu incha allah Bilahi, waaw ñu ngi loxo lay dellu waaw ah. ñu ngi waaw bu ko defee dañ ko yóbbaale yàlla moo koy loxo def ko neex insha Allah yàlla la ko def ko sa nga woon borom bi mu nekkoon le 28 juillet 2019 dama seen tawaay la dama seen sunu mag la ñu ñu amama sama frère di ko ziar di ko ñaanal jàmm bu baax a baax dajal micro yi tuuti. loolu yàgg na suuf. ndongolo sunu mag bi nee na bu ñu àndee mbooloo bokk ndey ak paa. micro yi micro yi. te fi ñu noonu la demee ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. loolu sama frère la maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax bu baax a baax. ndox maa bu ñu nee boo ñëwee yoonu ndam. bu yoonu ndam du sol li mu sol yàlla ko yoonu ndam moo ko dëgg la. ok. Yàlla ma def organisation bi ba réussir ba presse bi yëpp waaw ah, waaw loolu la presse bi yow priorité nga bala maa leen masawu coono baax a baax capacité nationale internationale di gënal ci président parce que daal sama ngeen loolu ci moom daal leen moo gaayam di ngay bana man ñoom am gaay yëpp daal kafe yi sama ne bu ko woon daal jëm li naa yooyu nag yooyu naa xëy ni quoi ñaan suñu borom di nuyu waa Ndayane bu baax bu leen fàtte bu baax a baax waa Ndayane maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa Kër Abdoulaye Mame di nuyu sëñ Fallou maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di ziar ñëpp di bëgg ñëpp comme ni nga ko waxee rek ñoom ñoo def liggéey bu am solo ki ngeen nekk à l'aise te sant yàlla ba ngeen nekk à l'aise kontaan nañ si kontaan nañ si pour nga woon pour nga woon dañ lay laaj ci côté mobilisation parce que gis nañ pays bi ci gën a yomb six mille francs boo leen nan la mën a def ba génn waa Pikine ñëpp parce que

e Modou Modou e Modou Anta e Modou e Modou Anta Modou Anta benn